wax waxaat du bari wax waaye leeral ay wax la accident bi nga xam ni moo amoon ca yoonu Kaffrine l'observateur yéene kay leeral na ko ba mu raw mi di Banjul ki sondeel ndax ñi nga xam ni ñoo mucc ci boobule accident ñoo nettali lépp ku ci mel ni Aboubacar Sow nee na dafa gis ay doomi aadama yoo xam ni dañoo dogo dogotee ñii seen tànk dem ñii seen loxo dem Pape Fall ne chauffeur bi leen sacrifié waaye li leer ba leer mooy ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy sàcc yi doon sàcc ñi nga xamante ni nii ñoo génne àdduna l'observateur yéen kaay leeral na ko ñu leeral it ci biir l'observateur yéen kaay directeur généraux yi nga xam ni Macky Sall nga fi toog booba ak léegi toll na ci ñeent baa juróomi weer waaye ak léegi ñoom it ñu ngi ci seen fauteuil banque leen seen baaraam Babacar Diagne Amadou Ba ak Mamadou coor ak ñeneen ak ñeneen l'observateur yéen kaay ne lan la Macky Sall di xaar pour dàq leen dàq ganaar waxaale sa soxla la la ko Quotidien yéen kaay wax mu ne jamono bi nga xam ni ñooñu Abdoulaye Wade yi ñu ci bari ci ñoom ña nga ndugg siin nga kaso ku ci may li bay la wan mbaa Amadou Kane Diallo Le Quotidien yéen kaay ne Abdoulaye Wade moom ak ñaari doomam ak jabaram ñu ngi ci seen daata talax enquête Quotidien ne hôpital Dalal Jàmm ba dëkk ca Pikine xaw tuut musiba mambo kumba am fa li ko waral mooy dañ foo naral a luubal juróom benn milliards yu teg di euh, marché yaa ma neex annulé nañ ko te ki ko annulé du kenn ku dul jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér gi yaram yaramam la ñu jàpp tëcc ko mel ni kuy tëcc loolu le populaire yéene kaay ne Lamine Cissé dañu ko takk pendre ko ba ñàkk na ba kanam laas ko diñee dikk ak ñun ca na xam ni noonee la ñu fàttee Lamine Cissé mu ne sàcc yi moom ku yabu di leen ñaanal ndax lii moom dafa ëpp lopp tuuru la libération yéene kaay ne fële ca Jurbel am na ci ñaar fukki élève ak benn yoo xam ni dañ leen a dàq li tax ñu dàq leen libération yéene kaay ne dañ doon tricher ci baccalauréat bi laas ko dijee ne Pape Diop astafirullah Moustapha Diop laataal alternance doon teru amoon na juróomi milliards ci kontam li ci ay kër li moom ci ay oto lépp mi ngi ci biir laas quotidien guy gi ak Baye Mandione sunu lamb ne mooy choc bi nga xam ni moom lañ ñéem di xaar ndax ko xam ñoom ñaar ñooñu xam ni ay dof piir lañu taay si nga dof du wér su ma waxee loolu xel yépp jëm ci ata mbaa ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène ata mi ja amoon a jafe-jafe ak Eumeu Sène caabi féete na ko ginnaaw Walf Fadjri grand place ñu ko xamal ne ata en prison waaye la yóbbu ata prison du digganteem ak Eumeu Sène de benn waay la ñu ne moom la ata wuru ci moom ñaar fukki million ba ci jamono ji ñuy wax ak yéen fanaan na guddeem gu njëkk ca kaso ba tey yàlla suñu borom aadame